jërëjëf mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel xanaa namoon leen waaye Covid 19 oblige xaar bi yàgg na ana buur ana buur buur yegg si na ñëwaat na tey nag ñu seet si le Don King de l'arène eh, l'ex Don King de l'arène ndax bàyyi woon taxawoon na bàyyi na tey nag del siwaat na mais Père Gaston ñaare lépp lu muy def lu ne am na raison Père Gaston nuyu naa la. buur maa ngi lay fay. Hmm. Père Gaston demoon dikk. j'espère que cette fois-ci décision bi Père Gasson... djel euh, décision la contexte. xam nga dafa démon man man ko donc euh, ci réew mi bok euh, affaire lamb nga may laaj ni effectivement arrêté mais ci réew mi du mënuma réew aussi di am mënuma permettre aussi réew donc, nous avons bëgg de profité ci Covid 19 pour taxaw di régler ay compte Nous ñi leen ko may c'est plateau yi télé et tout ça Nous avons profité de régler compte parce que effectivement aussi jus dafa amatul programme pratiquement programme l'AMBO, particulièrement dafa amatul ci télévision et làmb yi bon ay ay euh, nu ngi koy euh, rediffusion yoy rek ci am mais événement bu tax bu meuna a ébranler nit ñi prendre nit ñi en haleine ba nga xamni lepp lu ñuy tok di seetaan lolu lay do da nga japp ne que lolu lamb rek moko man lamb rek ko man lamb c'est un facteur de développement un facteur de stabilité sociale un facteur de communication et de promotion lamb su taxawé leneen lu taxaw lamb ji la ñuy Père Gaston am projet bu am solo di projet boo xam ne Gaston c'est un homme de défi euh, gis nañ saa su ne saa bu lamb tolli fii souvent Gaston sera l'homme de la situation euh, tey gis nañu ténor yu bëri yu toogoon tey bëriwuñu Gaston ne pour un premier temps man dama jàpp ne plan A la mooy Balla gay Boy Gris Bordeaux Sa Thiès Reug nangam maanaam teg sa benn plan mais j'espère que plan A la waaw plan A la et puis que ni ma limee mbër yoyu amna ci sax ay rectificatif parce que melni par exemple euh, sama dom Aziz Ndiaye sax jox na ma ci conseil ni ma pourquoi pas Gris Bordeaux Lac de guerre 2 pourquoi pas Sa euh, euh Yékini genre pourquoi pas ñenen ñenen ñenen ñenen fixe amunu fixation ci kenn man jël na nak bomb bi sànni comme ça mais man na nek comme lenen man na nek

les politiciens taxawal damay parce que li ngay bañ ma eh, ma sori ci na ci sori ñi nga xamni dañu bëgg taal réew mi bëgg plateau télévision yi ak plateau City. il faut ñu les populations de leen bëgg-bëgg. Sénégal Sénégal la culture Sénégal jamm la Sénégal.

yalla dana ma pexe pexe yoyu nak du lay mais de toute façon. non mais ont dañu gis Lambu ju mag mujjé teug dafa sous couverture am ko ci ginaam di euh, est-ce que du Aziz gis nañu def na retrait ne mom carrément bayina ndax serignam nee ko donc est-ce que du Aziz mo ne ci non Aziz non Aziz Aziz sama Aziz mo nek sama dañu teggu ko sama la couverture bokkon nañu et puis mu amee woon produit am bu ñuy wax Jador mu ñew indi ko ci duggal ko ci vraiment ñu def ci liguey bu reuy mais nam ko waxé won ma waxé ko ko dañu def won ben partenariat partenariat bobu jeexna man bamay teug lamb làmb Aziz nekku fi woon ba am samay pexé Aziz nekku fi won yalla dimbali nako nak jox sutural ko ba nga xamni ñewna vraiment def ci lamb lo xamni aussi lu

déggoo bërki démb président Macky Sall bi koy dubabe dafa done supplier les les les entreprises pour ñu baña a kenn mais ñu wàññi salaire yi parce que xam nañ ni économie bi attanatul loolu euh, tey réew mi tal nañu leneen lu taxaw di génné xaalis bo xamni ni dégg nga moom xamoo mais mais c'est c'est même pas sain mais mais bëri la ku mel Balla gay père Gaston mais mais kané ay ku mel ni di ko fay lu mat 100 millions wala boobu mais ku mel ni Gaston tëgg la këy succès mais d'accord, mais pour y a plus de 100 millions. non jamais de la vie. millions voilà a non non non non non parce que. non non mais question yi ngeen di posé oh, bien. bien question bi poussé même les promoteurs que folie yo vous, yo

mais loolu euh, léeboon lëppoon amoon na fi daanaan la amoon na fi amoon na fi mais kooku ñoom ci seen bopp xam na ni loolu mënatu la am pour que sax mais c'est pas possible xanaa loolu mooy xaru man ku ndóbin rey sa maam foo gis lu ñuul daw man combien de problème laa am combien yan difficulté laa amul ci làmb lu ne daj naa ko ci làmp tey ku su ma dellusee tey yàlla sax may jëkk a jëppi on est d'accord

teguñu ko ci yoon te du parce que pousser un promoteur à la rescousse pousser un promoteur qui musiba mooy di fayu 100 millions di fayu ay 80 fayu millions mais dafa mais yow kii pousser yow sa kër peut-être da nga am mais yaa pousser nit ki ka mu jaay këram wala ka mu def lu mu def wala ka mu dugg wala mais mais yow yaa wax léegi Petit Mbaye ne mérite pas di génn dëkk bi il ne le mérite pas il a tout fait pour la lutte

dañoo war a ci seen xel. kon yow mbeur yooyu nga ciblé bu fekkee kenn fekk ci wu ci par principe. mu mën nga mën nga am plan B. xam nga tey nga fi seen manager président manager fekk nga leen man du ma ci seeti benn du ma ci forcer kenn aw ma fixation ci kenn. maanaam seen ngay waxal directement. ciblé naa la daal ay mbër seen i manager dana leen seet mbër bu ma ci woo itam dinaa la wuyu ñu waxtaan. mais est-ce que am na ay avancées non non du question est ce que madame, est ce que a avancé madame, accord de principe. non non je man la pas projet la buy soog taxaw yaa ngi ñëw tey fekk manager ñëpp dégg yu bëri may téléphone yu accord sans man ma may téléphoné ma père bu ma père bu ma fàttali rek ngay dégg ñoom ñëpp kon xam nañ ne la bu baax mhm. Mhm. Ah, de ligne. ku ci bañ sa morom jël kérok ba taxawal classe mbeur yi fi nek tay yépp ñom roi des arènes nag ñom Balla ñom ñëpp fi nekkon kèn mu ci am 800000 ñu yëkkati leen ba nu actif su boba suñ ko bañé ñu yëkëti ñeneen rek def leen bu bañé da lambay nangu mm, bu mul bañé lambay nangu bul bañee lambay nangu en parlant de Ligue Nicolas Chafal dafa am combat bu mu taxawalon Sénégal gépp soxla moo tax di combat Ama Baldé ak Modou tax ñëpp diko ñaanal yalla man dama bëgg honnêtement ci sama xol la ko tibé yalla na yalla gënë combat parce que amna lu mu defone ci xelu mbër ba mbër yi xam lolu japon ko peut-être que mbër sax man no am xelu ni ko kat Luc ba nga nuy fay lii pandémie amul won dara amul won légui danañ la ko wàññil ak difficulté yi nga doon yëpp mën nañ la ko ba temps dindi ci 30 wala 40 même su ko doom yu don teug wala keneen teug sax mais mais par question est-ce que warul bokk tay xalat tay ci en promoteur yi léegi dugg ci lolu problème amna

problème mu Alioune Sarr ak la CNG euh, ñu bëri ñu ci àddu euh, ñii dañ nañ ko nañ ko nañ ko may mu maanaam mu sortir par la grande porte ñii ne na dem doy na. Alioune Sarr nu mu génnee par la grande porte lay génne parce que Alioune Sarr kenn doo gis ku taxaw ni Alioune lii la fi yàq wala Alioune Sarr lii la fi jël xam nga lu ñuy wax Alioune Sarr fee te ñi koy wax xam nga ñan la ñoo xam ne tekkiwuñ dara ci làmb bu defalun dara làmb apporté luñ dara làmb loolu sañ ñëw di toog. dégg nga maam di ci jaay seen bopp di jaayu ci làmb ji di jaayu ci plateau télévision yi di ci xas nit koo xam ne sequ leen ko yow mosoo jox mbër un million mosoo cotisé ci làmb dara mosoo cee def làmb amee sa làmmiñ rek di wax ak di yàq nit loolu moom moo war a dakk ci làmb ji Père Gaston la moo sa dernier mot xanaa te wax ni euh, euh, beneen euh, beneen produit seen produit dellu

Euh, mébét bi mbëri tamit xam ni aussi loolu woon ni na effectivement parce que Covid 19 oblige. tey nag ñu ñëwoon fi tey ànd ak équipe bu jeune dynamique ah ci bopp bi Cheikh Omar Gaye suma caméraman euh, ak ki nga xam ni moom mooy Papa Omar Soxna ak Ousmane Diouf kon mbokk yi ñun ak yéen ba yeneen i jamono.